bismillah alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah xasbi allah inna waliy allah wa ma tawfiqi illa billahi la xawla wala quwata illa billah kon ñu ngi tàmbali sunu kàddu ci jotaay bi ñu seq ak yéen tey jotaayub laabirante ak fàttalente ci nuyoob lislaam muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di leen ziyaare itam ci barab bi ak ci waxtu wi barab bi xam nañu ko ndax xarqul aadate ko def muy jëfi sëriñ tubaa ci sunu boroom ngir sellal ak yokku ak yeesal diine jamono ji itam xam nañu ko mooy jamono ji nga xam ne moo ndaboo alquran ak leer ak gindiku muy shahru ramadan kon nuyoo boobu ak ziyaar bi ni ñu koy waxee fu ne ñu ci jiital euh, Cheikh Sidi Muxtaar di ko ñaanal sunu borom subhanahu wa taala yàggal ko fi téwéral ko di ko ñaanal euh, sëñ imaam sëñ Mahamadou Mamoun Bousso su ko defee dañ ko ñaanal képp kuy liggéey lislaam li takkuuna kalimatullahi hiya al-ulya ko defee maag yéen ci biir lañuy ñuy bokk jumaa yi Tuuba rawatina muqaddamatul xidma suñu yittewoo lu jëm ci tomb bi danga xam ne yelloo na ko ndax sëriñ bi muy sëriñ Tuubaa mi nga xam ne mooy sunu delluwaay mujjadit gi mu doonoon dafay làmbaale li ñuy wax xilaafatullahi fil ard mooy wuutu gi nga xamante ni moom la doomu aadama di wuutu suñu boroom ci suuf kuutaay loolu nag xëy na dana ci waxoo yu gudd waaye alquran daf koo firi laatal boppam ba mu ne yaa daawudu inna jaalnaaka xalifatan fi l ard inna jaalnaaka xalifatan fi l ard lu ca teg muy woon ne mooy xilaafa gi dane fa bayna annaasi bilxaqi wala tattabic ilhawa kon loolu mooy alxilaafa ci dëgg alxaq googu ngeen dégg muy dëgg nag alxaq googu itam la ñuy jëfandikoo waat bi ci jublu yelleef tubaab bi di ko wax droit kon occasion bu mel nii wala pose bu mel nii duma ko bàyyi te duma wone mbégte mi ma am ci euh, axe bi maanaam thème bu mag bi nga xam ne moom la tànn te ñu tudde ko xuququn xaddadaha al islaam maanaam droit yoo xam ne lislaam moo ko déterminé l'islam moo ko daytal lislaam moo ne lii yelleef sàngam la ak sàngam ci weeru koor wi ñu nekk ku ci tànn loolu day lu am maana ba noppi nag tànnaat ci ñu tànnaat ci biir tem bi yeneeni thème yoo xam ne daf koy daf koy firi ndax thème yu bare bari la muy wax lan mooy euh, yelleefu doomu aadama bokk na ci rek bokk na ci rek ñaar yu fi jiitu muy boo xam ne yelleefu dëkkandoo la euh, ak bi nga xam ne yelleefu jirim la sëñ Cheikhouna Mbacké Abdou Wadoud xam ngeen ne def na fi lu am ci bu njëkk bi ak sëriñ Fallou njaay Guédé rawatina moom sëñ Fallou Ndiaye mi nga xam ne dafay liggéey ci wàllu euh, yor ay jirim kon ñetteelu euh, banqaas bi ci yelleef yi nga xam ne yelleef doomu aadama te lislaam joxe ko moom ci lañuy fas yéene jublu tey incha allah taala loolu nag moo xam nuñ koy firee waaye mën na am dana am solo tomb bi moom am na solo ba noppi bu riche la itam ndax fuqaaw yi ñuy yëngatu ñi nga xam ne seen xel dafa màcc jëm ci fiqu ci lislaam euh, dañ cee sonn lool dañ cee dugg ci yenn détails yoo xam ne sax ñaare man ngay jàng fiq di gëstu te doo ko bàyyi xel fekk ay droit yu sew la yoo xam ne lislaam daf koo déterminer daf koo garantir ba noppi teg ci ay sanction teg ci ay daan yu diis ci koo xamante ni daf koo bañ a euh, topp waaye gëstu bi xëy na dafa dama cee jël euh, ci man temps bu gudd ba tax na li ma ci indi bari na bari goog dañ koy tënk moo tax lépp loo xamante ni rek ñëw na ci ci noo xamante ni dese naa jekk nañu ko xamee ne tënk genn gi moo koy waral ginnaaw gàtt ëlloo gi ginnaaw itam làmmiñ wi nga xam ne mën naa bañ a leere noonu ba mu war a euh, seetal ak a leeral lu tënk ci yu mel noonu sëriñ bi tudd na ko léegi ci niñ ko séddalee li ñu njëkk a def mooy dañuy lay layal lan moo tax ñu tànn euh, tomb bi ñaareel bi dañuy wax suñu waxee yelleef wala droit lan lañ ci jublu ñetteel bi yelleefi doomu aadama lan lañ ci jublu ñeenteel bi jagoo yi doomu aadama yi li ñuy wax critères yi juróomeel bi ñan lañ jublu ci way néew doole yi juróom-benneel bi way néew doole yi ak seeni pàcc maanaam seeni catégorie <laughs> Eh, maanaam catégorie bu ne dafa am yenn droit spécifique yoo xam ne ñoom rek ñoo ko jagoo wala ñoom lañ ci gën a bari juróom-ñaareel bi nag muy yelleef yoo xam ne képp ku néew doole rek yaag sa moroom ko bopp juróom-ñetteel bi mujj bi mooy tënk bi ci la ñuy tënkee gëstu bi ci la ñuy waxee ñun liñ ciy jëlee kon ci laytaay gi am solo jëmmi thème bi ñu tànn muy euh, thème axial bi muy yelleefu doomu aadama ci lislaam man damay jàpp ne dafay tontu lu baree bari ci sunu mbokk yi rawatina tubaab yi ak ñiy tubaab tubaab lu ak yi tubaab yi jàngal ndax su dee tubaab yi moom li lislaam waxoon rek mënuñoo gërëm mukk lu dul ne da ngeen a bàyyi seen diine topp leen ci lañ nekk moo tax gisin wi ñu yore ci àdduna ak niñ ko war a dundee moom lañu ñu bëgg julli ñu yor ko li fekk yoruñu ko kon day am jafe-jafe ñi jàngee seen daara wala nañu wax seen i jàngukaay itam tubaab yi dañ leen a gurgural ci menn mbedd moo xam ne mënatuñu faa génn ni ma koy misaale léeg-léeg dawal fas ak ay mala dañ ko xam ay lunette lañ koy wax ci fas nii lañ koy def suñ ko këppee fii kanam gi fa mu bëgg mu jëmale fa rek fa lay jëwale ñaare ñi nga xamante ni ñoom lay tubaab bi di jàngal noonu lañu leen di recadrer noonu lañ leen di jëmale ci benn barab ba nga xam ne li ñu bëgg ci ñoom ñu koy gis la gis safaan ba dañuy yaakaar ne bokkut ci xam-xam wala bokkut sax ci li ñuy wax humanité muy ak ndoomu aadama euh, loolu waral na tubaab yi ak ñooñu ma tuddoon dañuy wedd ne lislaam am na lu ñuy wax droit de moo tax ku weddi kon mënoo wax ne lislaam moo jiitu ci nangam ci yelleef mënoo ko wax ndax dangaa weddi ba noppi ne euh, lislaam amut amut droit de kon li fi lislaam defoon ci ñeewante gi ci àq yi nga xam daf ko jox ñu néew doole ci jamono yoo xam ne ñooñu xamaguñu loolu ci yeneen i barab duñ ko gis waaye mën naa wax ne lislaam jiit na xeeti droit yu bëree bëri yi ñu gis fii ci anam googu teewul nag da gis ñoo xam ne dañ naan ci gàttal lislaam li ñuy tuddee droit de l'homme maanaam li ñuy tuddee yelleefu doomu aadama du yelleefu doomu aadama nga ne leen lu ngeen koy firee ñu ne ay warteef la ay devoir la yoo xam ne dafa war ci diw wala ci aw nit sàngam ñu ñu war ko accomplir masalan dañ naan la ñi nga xamante ni ñooy jiite am nañ warteefu maanaam devoiru ñu taxawal ak maandute établir la justice maanaam devoir d'établir la la justice la moo am ci lislaam waaye droit droit ba tax ñuy wax maanaam d'équité ñoom jàpp nañu ne amut amut ci droit droit à la justice jàpp nañu itam amut ci lislaam beneen misaal ñuy wax ne devoiru wala warteefu bañ a jàpp nit ki njaam ci lu jaaduwul moo am waaye maanaam droit wala liberté droit à la liberté amut ci lislaam waxaat ne devoir wala warteefu wax dëgg moo am ci lislaam waaye euh, liberté d'expression amul ci lislaam yu mel noonu dañ koy wax loolu nag euh, xëy na li ma leen waxoon léegi li ko fi indi bu dara lu may ñàkk bokk aw déggin ak itam jàpp ne suñu wax nangam lom moom lom moo ko war a tànnal boppam te fekk njàngat ma nekkut foofa njàngan mi fi mu nekk mooy maanaam sañ-sañ yi muy joxe ak nit ñu koy jariñoo moo ëpp solo te suñu ñëwee ci biir dañu gis ne lislaam jox na ay sañ-sañ yu leer nañ ñi aw nit ñu néew doole ngir position ñu néew doole ngir situation ñu néew doole ngir jëm ak mag wala yu mel noonu te loolu dana leer ci kanam loolu dama ko doon indi rek ngir euh, wax ne am na bu baax a baax lu tolloog junni at ak ñeent téeméer boobaak léegi kon ni tubaab yi jàpp ne droit de l'homme moom fu ñu koy wax day mel ne day gàtt lool ndax day commencé 1789 ak ak euh, révolution française bi nga xamante ni ñoom am na lu ñu génne woon benn document te sukkandikoo ko ci njàngat ak gis-gis ak théorie Jean-Jacques Rousseau ci li mu tudd moom nazariyatul aqd ijtimaai muy contrat social foofu lañ jàpp ne droit de l'homme suñ koy foofu la tàmbalee nit ki ba mu commencé am ay yelleef yu dëgër yu stable yu ñu garanti la ñuy jàpp mooy booba xëy na li ko jiitu tuuti mooy déclaration muy euh, indépendance bu bu Amérique waaye loolu itam xam nañ ne lu yàggut la ndax 1776 la 4 juin euh, Thomas Jefferson moo bindoon la ca ëpp ginnaaw bi doon na président bu États-Unis d'Amérique kon gis nañu ne lislaam indi na ay yelleef junni at ak ñaar téeméer ak nangam daataal. tubaab bi di wax droit de l'homme waaye nag yelleef googu ñuy wax mooy lan mooy ñaareelu tomb bi ak nag yelleefu doomu aadama mooy lan ndem dañuy jàngat ci wàllum lislaam mënuñoo ñàkk a delluwaat ci baat yi te alquran ak sunna dafay arab moo tax ñu jëfandiko baatub alxaq baatub alxaq boobu moo xam xaq dañu ko wala xuqu euh, ci aw làkk làkku arab léeg-léeg day firi loo xam ne mën naa am soo demee ca nañ koy jëfandikoo dana ko du ko firi waaye danañ am ak lëkkaloo xaq am na lu tolloog ñeent ba ci juróomi maanaa day firi lu dal mbaa lu yay lu dal mbaa lu yay soo gisee yooyu ñëw na ci alquran walakin xaqat kalimatu aladabi ala alkafirin kooku yay na lay firi maanaam mbugal daal yey na ci ci ñi nga xamante ni ñoo weddi waaye itam dana firi lu wuuteeg ay caaxaan wa qul jaa al wa zahaqa al kon mooy mën nañu wax pëstéefu wala lu wér waaye itam ñetteel bi bokk na ci turi sunu borom yi subhaanahu wa taala muy alxaq ñeenteel bi dana firi dëgg wa qul alxaqu min rabbikum léegi nag fa man shaa fal yumin wa in shaa falyakfur am na xadis bu naan inna allaha jaala alxaqa ala lisaani umara wa qalbihi muy muy dëgg juróomeel mooy lu jub lu jub mooy loo xam ne am xel daf koy nangu dégg ngeen ci wax ju siiw ne imaamu Shaafi'i moo ko wax waaye war nañoo mën a jàpp ne qaacida fiqhiya la ci boroom xam-xam buy mujtahid dana woon ra'yi sawaabun yaxtamilu alxata wa ra'yu gayri xataun yaxtamilu sawaab sama gisiin mooy lu jub mën naa am lu ci dëng ku gis lu wuuteeg moom dafa dëng mën naa am lu ci jub mën naa am muy lu jub kon euh, sëñ Xasan soo gisee juróom yooyu yëpp dafay am lëkkaloo ak li ñuy wax suñu wax yay ndax yelleef day yay ci nit ñi ñu sàmmal ko boroom day doon lu dëggu itam lu doonut ay caaxaan day lu jub kon loolu la ñu séq su fekkee nag ci euh, liñ ko ci jublu suñ ko waxee ci wàllum loi wala droit am na ci ñetti jëmuwaay benn bi mooy dañ ci jublu iraada muy volonté nit ki am euh, ye maanaam xememteefu jëfandikoo lu mu moom am na ñoo xam ne maslaxa dañuy jëf euh, lañ ci jublu mooy njariñ nit ki saña jëf luy njariñam am na ñoo xam ne dañuy boole ñaar yëpp waaye yooyu day gudd dama indi benn rek boo xam ne euh, ñu bare bare mën nañ cee mën nañ cee juboo dañuy wax ne lu la yoon jagleel moomale la ko te di la ko aaral la loo xam ne yow yoon jagleel na la ko te dala koy aaral aaral bi li ci jublu mooy ku dem ba bëgg koo jalgati dana dal ci kawam su ko defee nag su loolu doon yelleef suñu waxee yelleefu doomu adama mooy sañ-sañ yi nga xam ne doomu aadama da dakoo jagoo ngir ne doomu aadama la ngir ne doomu aadama la loolu mooy ñaareelu point bi bi ci topp mooy li ñuy wax xasaais yi mu jagoo bokk na ci ngir ne dafay loo xam ne li ñuy wax euh, abstrait amul desu ko moom la diw moo tax ñett nañ ko ci taamu àqi doomu aadama day loo xam ne kenn mënu koo jaay kenn mënu koo jënd kenn mënu koo donn sa àq sa àq la sa ñoo mënoo koo jaay mënoo keneen mënu koo jënd ci yow ko fàggu ci dara te itam mëne fu koo donn ku fi jógee itam day bàyyi moom xam ñoo demandoo waaye keneen du doon àqam ndax ka ko war a doon am na lu mel noonu ñaareel ba itam dañoo bokk tey ñi maanaam ëmb doomu aadama yëpp doomu aadama ak àqam duñ ci xool couleur am duñ ci xool nationalité duñ ci xool góor la wala jigéen la duñ ci xool li ñuy wax waaso wala ay meen wala wàllum culture doomu aadama la noonu la koy moom ñetteel ba kenn mënu koo maanaam not ci doomu aadama kenn mënu koo nangu ci doomu aadama kenn mënu koo pàcc pàccee Euh, loolu mooy euh, ñetteelu tomb bi muy yooyu nga xam ne àqi doomu adama jagoo na ñeenteel bi mooy nag sunu thème bi niñ ko ci lëkkalee mooy dañoo wax insaan mooy yelleefu doomu aadama yi waaye fi ñu fi ñor tey mooy ad-du'afa mooy ñi néew doole kon war nañoo xam ñi néew doole ñooy ñan da nga gis ne alquran baatu maanaam néew doole jublu ci nit daf ko indi lu mat fanweer yoon tey bu nekk daf koy lëkkaleek la tax wala boog nañ ko war a fonkee nañu war a sonn ci ay mbiram loolu day wone ne kon lislaam yitteel na ko lool ñi nga xam ne dañoo new doole ak dimbali gi ñu leen di dimbali sonnee gi ñu sonnee seen i mbir ak ni ñu leen war a sàmmalee seeni i àq fanweer yooyu ma mooy li nga xam ne maanaam baatub daaf da cee ñëw baatub néew doole da cee ñëw expressément maanaam saraaxatan dafa ko wax mu leer nañ bokkut ak yi nga xam ne maanaam mi la indi maanaam loola moom euh, bari na lool ba yaakaar naa ne teewlu ko fii ne yombul bokk na ci laysa ala duafai wala ala almarda wala ala alladina la yajiduna ma yunfiquna xaraj ida nasaxu lillahi wa rasulih foofu ñaar yooyu laa fi bëgg a euh, ràññee su ne ala duafa yi mooy ñi néew doole baat bi moo fi ñëw muy wane ne kon ñi néew doole yàlla topp leen dara wala alal marda la wax ñi nga xamante ne dañoo wopp te wopp itam ci néew doole la ko lislaam di considere wopp feebar tële lislaam daf koy jàppe ci néew doole kon foofu néew doole ñëw na fii te tudduñu ko mu leer nañ wala ala alladina laa yajiduuna maa yunfiquuna ñi nga xam ne amuñu lu ñu joxe itam bokk na ci loolu itam néew doole la ko lislaam di jàppe moo taxoon ma ne euh, néew doole lislaam indi na ko fanweeri yoon tudd baat bi ñëw na ay yoon yu baree bari te tudd baab bi moo ëpp loolu fopp foofu euh, alqurtubi ba mu firi adduafa dana mooy ñi nga xam ne dañoo am ak lompañ mbaa màggat mbaa koo xam ne ay bëtam dafa muuru mbaa koo xam ne ab doxam dafa soox moo fa mu wax feneen laysa alal ama laysa alal ama xaraj alal araj xaraj ba mu jeex ñooyam ibnu abbas itam nee na mooy màggat yi ak ñi néew doole ak ñi xam ne dañoo lompañ nee nañu itam mooy gone yi ak jigéen ñi kon ñun ñëpp dañuy firi rek néew doole te loolu dana ñëw ci kanam waaye suñ doon wax néew doole mën nañu jàpp ne ay melo la ngir bala ma ko faram dama koy tënk euh, mu gën a yomb ci nit ñi ay melo yoo xam ne ku ñu nekk ci ñoom mën nañ leen a jàppe néew doole teewul nag suñu waxee wenn melo ñu baree bari dañuy dugg ci biir ñeenti melo lañ ciy jël moom lañ ci indi fii ñaar ñi dañ leen di bàyyi ñaar yi la ñuy faram-fàcc melawu njëkk wi xeetu euh, bind lay gën a jege xeetu bind bu la yàlla binde noonu mbaa boog comportement boo am kooku dana firi néew doole ci ni ko alquran di firee bokk na ci yàkkamti bokk na ci réer bokk na ci tooñ kéefër ak itam di naagu loolu ak néew doole ne ku nekk foofu rek position bi mu nekk position faiblesse la nit koo xamante ni dafay yàkkamti ndax dafay bari lu muy yàqle ak lu muy yàqal te su boobaa day jur yu baree bari waaye boobu duñ ci dugg euh, ndax dëgg-dëgg dugg ci ci ci sunu maanaam samimul mawdu ci tomb ci digg tomb bi am na ci beneen mooy maanaam situation politique bu nekk ci fi mu nekk ak la fay dox ci ñi moom maanaam ñoo xam ne dañu nekk ci barab boo xam ne dañu leen di néewal doole euh, ak yu mel noonu yooyu de jur yu baree bari loolu sax da gis ne bokk na ci cas yi nga xam ne ci lañ gën a mën a sonal nit ki ci ñàkk gu mu ñàkk a wormaal yelleefi doomu aadama Euh, ku demee Charles Taylor lu mel noonu dal na ko fi euh, ak ñeneen ak ñeneen boobu itam dañ koy bàyyi sëriñ bi ndax duggut ci dëgg-dëgg li nga xamante ni ñun moom la ñuy jon jonteel bis bu set kon ñaar yi may waaj a wax moom lañuy ñuy jëmmal faram-fàcce ko beneen mooy melo yi nga xam ne maanaam naturellement wala ci bindu doomu aadama bi dafa nekk ci moom maanaam am na ci néew doole goo xam ne ci ay at lay doon néew doole ko xam ci at la xale bu ndaw ak màggat am na ci nag néew doole goo xam ne li ñuy genre la ni ko yàlla bindee muy jigéen wala yu mel noonu kooku danañ ci euh, yaatal lool ci ak faram fàcce incha allah ndax ñu bare bare nañu dugg ci biir euh, ñeenteel bi mooy maanaam waa ji nag ak euh, situation bi mu nekk maanaam ni muy dund ci wàllum social foofu am na néew dooleeg ñàkk am na néew dooleeg wopp wopp itam bari nay façon na am na wo wopp goo xam ne dëkkaale la wala iyaadu billah moo xam feebara ko indi wala daf koo judduwaare waaye am na boo xam ne dafay doon loo xam ne as lay doon muy wopp yii rek mbaa ku dara dal ab choc dal ko ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp day indi ak néew doole kon ci yooyu am mën nañ koo catégoriser mën nañ koo xaaj ay xaaj yu bare bare bare da ngeen gis am na ci lenn ci xaaj yoo xam ne ñëwoon na ci tomb bu sëñ alxaaj njaay bi muy jirim su boobaa dama fay jaar jàll am na yoo xam gën a ñëw ci tomb sëñ Cheikh Mbacke bi sëñ sëñ Cheikh Mbacke ña ngi laa bëgg a wax sëñ Fallou Boussa Xasan mbaa sëñ euh, Ahmad Samb mudir su boobaa itam dama fay jaar jàll su dul yooyu nag laay xaw a maanaam bàyyi xel concentré wu ci tuuti looloo waral dama fi indi fukki catégorie ak juróom maanaam fukki pàcc ak juróom yoo xam ne ñépp way néew doole lañ fukki pàcc ak juróom yoo xam ne ñépp way néew doole lañ loolu ci indi nii bu ma tudd nag damay tudd lenn ci ay yelleef yi ko lislaam jox jàll ndax de su cee munta euh, guddal ci bu ne ndax waxtu yu mayewu ko coonob koor gi mayewu ko waaye itam sunu alluwa mayewu ko kon catégorie bu njëkk bi mooy ñi nga xam ne dañoo wopp maanaam dañoo feebar feebar nag mbokk yi dafa bari ay xeet feebaru yaram am na feebarum xel am na feebar itam dafa bari ay xeet ci diiru feebar ma comme ni waxoon sànq mën na doon wopp joo xam ne as ndiggante lay doon moo xam dafa tooy wala yeneen feebar yee ko dal wala boo xam ne dafay continuer ba faaw wala iyaadu billaah yooyu itam am na ci ki noonu dëgëret wala taruk feebar gi mën naa doon feebar boo xam ne bu xaw a kii rek woyof ay soj ak yu mel noonu ci ñu jàpp ne soj du feebar bu am solo ak siburu ci ñu jàpp ne siburu du feebar bi am solo waaye mën naa tar lool ba nit ki sax léeg-léeg du mën a yëngal ay cër wala iyaadu billaah itam am na ci wuute gi itam nu muy mën a jëfandikoo ay cëram ci ginnaaw bi am na ci wopp yoo xam ne day tax nit ki dootu daanaka mën a lijjanteeti wàllum wërsëgam wala boobu du ko lijjantee na ko ña di mën a lijjantee loolu des na ay wopp matalan xam ne lenn ci ay cëram danay manqué ba na mu waroon mën a lijjante wàllum dundam du ko mën noonu itam dafa koy amee ci cëru yaram waaye da koy amee ci cëram xel am na ñoo xam ne seen cër yi seenum xel damaa jum dawaay du cërum xel ci mu xel rek am na ñoo xam ne seenum xel maanaam dana xaw a des tuuti waaye teewul danañ mën a lijjanti seen bopp danañ mën a lijjanti seen bopp gis nga fiq da cee bàyyiwu dara ba am na lu muy ak asafih moom asafih mooy koo xam ne maanaam mën naa liggéey waaye xelum ak euh, lijjanti saytu ko ba du ko yàq li dul man kooku fii ne dafa am baab dafa am bunt ci fiq ak yelleef goo xam ne ay mbokkam walla sax wasi wala euh, ki yore kilifa yi moo koy saytul alalam ngir mu bañ koo yàq ngir mu bañ koo tasaare moo tax ci gàttal daal su ma waxee wopp rek nañ jàpp nañu bare bari mën nañoo dugg ci biir waaye catégorie beeg lu mu bari bari dañuy jàpp ne ñoom li ñuy wax défavorisé ci lañ bokk ñi nga xam ne dese nañoo man jàpp nañ ne ay nécessité lañ mooy dañoo dañoo aajowoo ngir li leen yàlla teg ndax ñoom dañuy jàpp ne ñii waruñoo man daal waruñoo mën a dundal seen bopp dundal seen njaboot su dul ne ressource bi maanaam fa ñuy jëlee seen wërsëg day fu génn foo xam ne du seen ñaq masalan ñu jële ko ci miraas ñu jox leen ko may leen ko wala ñu jële ko ci ay waqf te loolu dafa dugg ci ndimbal yooyu nga xam ne ñoom dañ koy dañ koy sàkku loolu taxoon sunna sonne lool ci ñu mel noonu ba tax gis ngeen xadis bu siiw boobu nga xam ne abu hurayra radiallahu anhu moo ko soloo mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na su yowm alqiyaama sunu borom danaan yabna aadama maridtu falam taud nii qaala ya rabbi kayfa auduk wa anta rabbul alamin mu ne ko ama alimta anna abdi fulanan marida falam taudhu ama alimta annaka law udtahu la wajadtani indahu ne ko yow doomu aadama bi man day damaa woppoon seet seeti wuuma mu ne ko ah yow sama boroom nu ma lay seet seet te yaay boroom bindeef yi mu ne ko xanaa xamoo ne sama jaam diw dafa woppoon te seetiwoo woo ko woon xamoo woon ne foo soo ko seeti woon danga ma fa fekk adnab li si nee na fekk gi li mu lu mooy sunu borom su nattoo doomu aadama ci yu mel noonu euh, mu muñ ko daf koy suñu borom daf koy jege jege googu mu ko jege moo tax mu ne ko soo seet si woon diw moomee da nga fa fekk loolu itam am na ci sunu ndonal murit li ndax da ngeen di dégg sëñ Moussa Ka mu yàq damaa xam du ci nattoo di kerkeraal ndax bu mu daal te yàlla kat xarit ba lay musibaal ngir dara jaal ko mbaate muy ku muy baal daal ne la nabluwannakum li saabirina ahasiba annaasu lil kaafirina moom la ñu waxoon dab yàgg daal xam ne natt boobu yàlla sunu ku mu bëgg daf koy nattu mu ne xëy loolu mooy jege gi waaye daal nee na ko dama laa yalwaan aw ñam nga bañ mu ne ko yow nu ma lay leele te yaay borom mbindéef yi mu ne ko ab jaam dafa laa sàkk woon ci yow nga bañ euh, ak yu mel noonu kon loolu day wone lislaam ni mu sonne ci ñoom lislaam sax dafa sonn ba sonn ci ki nga xam ne yàlla dafa muur ay bëtam ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fu jant sooy nit ki war naa wut sarax bu mu dawlul boppam euh, foofu Abu Dar yi dafa bokkoon ci ñi xaw a ñàkk ah, nan la ñuy saraxee te amuñu te amuñu alal min ayna natasaddaq wa laysa lana amwaal mu koy wax ci wàllum saraxa yi ba ko ciy wax sax nit ki am soxla nga tegtal ko fa soxla sa nekk wala nga wax ko fa njariñam nekk ba koy wax ba ne ko euh, koo xamante ni maanaam dafay woote yuuxu di woote wallu nga dem wallu ji ko euh, yooyu yëpp nee na ci ci la bokk euh, sëriñ bi mu ngi koy wax ci ci masaalikul jinaan ci remplace sarax imaatatul ada an sabili hidayatun li dil amak ba léeli ki nga xamante ni yàlla dafa muur ay bëtam nga wommat ko mu jéggi tali wala nga yóbbu ko fa mu jëm lu nekk ci aw yoon muy xeer muy maanaam lu koy fa kasal muy ab dëkk mbaa xot bi déen mbaa bant bu def ay pontu nga jële ko fa ba mu jóge fa mën naa am koo xamante ni yàlla muur na bi tam xam nga doonu ko gis yooyu yëpp ci la bokk euh, kada iaanatun ala alxaaji lahu bi ma stataata ci la bokk tafrixu kalmiyaha min dalwika fii euh, inaihi ci la bokk mooy li ñuy wax baawal Euh, ku demee ne sëriñ bi xam na ko ku daa rooti soo dee jukki nit dana ñëw nga jukkil ko ci teen bi may ko defal ko cib siwoom mu dem loolu ci la bokk ndax ndimbal la ndax kooku dafa nekk ci position de faiblesse dafa nekk ci jamonoy néew doole joo xam ne danga nga ko koy euh, dimbalee ci la bokk ba ci sëñ bi nee na waraw daal woo takkal nit wala ak buumam gu dog nga takkalaatal ko ko euh, loolu yépp ci la bokk bari na daal soo gisee sëriñ bi foofu mu indi ci masalikul jinaan ci baabu sadaqati wal infaq indi na ci yu bare bari ci anam yooyu mat na fukk ak juróom-ñett mu ngi toftaloo nii luy lore nga dindi ko ci digg yoon silmaxa nga womat ko fa mu jëm nit ki di laaj barab nga tegtal ko ko wax ko fu njariñam nekk dimbali ko ci faj aajoom may ko maanaam lebal ko ci lebal bu rafet may ko li ma doon wax baawal léegi wala sax nga may ko ndox mu naan euh, takkun dàll walla warawa takkalaata gu buum gu dagg dimbali ko tong ko wala jàppale ko loxoom mu yéeg ci oto mbaa ci daaba dimbali ko ci mu ay bagage mu sëf ko wala boog koo xamante ni day sàkku ndimbal mbaa muy yuuxu di dimbali ko wallu nga wallu ko abal ko mbir doonte abradu la bu mu defaree su noppee delloo la ko seet si ku wopp gunge ab néew euh, yanu ko jaale ji koo xam ne ay mbo mbokkam dafa noppalu ziyaare nit ngir dalal ko ku wéet nga wëttali ko muy fukk ak juróom-ñett yoo xam ne sëriñ bi na ko te lépp soo gisee ñan ñi koy séq ak ñoom position ba ñu toll ak néew doole la fii nag dama bëggoon ñu seetaat ab tomb ci biir néew doole gi mooy ñi ñu tuddee Euh, maanaam almuaaq mooy ñi nga xam ne dañoo am ay soxla yu ñu jagoo ndax cër yu manqué waaye ci gàttal mooy koo xam ne dafa am benn ci ab laago boo xam ne dafay néewal dooleem mbaa da koy tee man a wuti wërsëgam moo tax itam dafay soxla woo ndimbal lu jóge ci bitti kooku mooy ku laago ke lislaam nag sonn na ci lool ba gis ngeen am na fu mu doon yedd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te li doxoon mu koy yedd mooy dafa am ñu mu doon waxal muy notable quraish yi mooy kilifa yi am ku ñëw ci moom te yàlla dafa muur ay bëtam mooy ibnu ummi maktuum mel na ñu saa sam xaw koo du mooy di wax ak ñële xëy na ñoo gën a bari wala ñoo gën a euh, nu mu tudd moo tax sunu borom ne ko abasa wa tawalla an jaahu l ba loola jeex nga xam ne loolu ku néew doole moo tax suñu borom subhanahu wa wàcce ko gis ngeen itam euh, lu demee ne nit ñi léeg-léeg ñu leen di tuddee ci seeni néew doole mbaa li ñu manqué walu li kulli humazatin lumaza loolu am na ci benn euh, xadis boo xam ne anas ibnu malik ku solo nee na yonente bi salaa sallam dane woon sunu borom subhanahu wa taala moo ne ida btalaytu abdi bi xabibatihi fa sabara awadtuhu minhuma aljanna saab jaam su ma ko nattoo ñaari soppeem yi muy ñaari bët yi muy xoole mu muñ ko nee na su boobaa dama ko koy wottee mooy dama koy faye ajjana gis ngeen ci nattu rek ak néew doole euh, téere tafsir liñ ci wax ne moom la sunu borom subhanahu wa taala nattoo yonentu yàlla ayuba yonentu yàlla ayuba sunu boroom nattoo na ko yaramam nattoo na ko alalam nattoo na ko doomam nattoo na ko soxna mu muñ ma tax gis nga sunu boroom lu mu ca teg inna wajadnaahu saabira daal ne ni'mal abdu innahu awwaab mu ne fekk la ma ko nattoo li muy néew doole su ma ko xoolee rek mu doon aji muñ mu ne kooku day jaam bu baax la ndax ku nangul suñu borom la kuy delluwaat suñu borom la ci foofu itam lislaam dam na lu ñuy wax damaan al ijtimaai boo xam ne lislaam daf koy garantiral ñu mel noonu su doon léegi moom la ñu tuddee justice sociale maanaam ñi nga xam ne mënuñu mba mënuñoo liggéey mbaa boog mënuñoo liggéey na mu waree ngir lu néew ci ñoom lislaam moo leen di warlul la leen di dundal dundal seenu njaboot mbaa la koy mott li loolu su dee ci fiqu maaliki xaddul kifaaya lañ koy wax xaddul kifaaya fiq maanaam ci fiqu maaliki day wax ne ku soxla woo ci ñu mel noonu nañu leen jox lu leen doy nañu leen jox lu leen doy ñu sax lu tollookum at ngir ñu man cee sukkandiku ba euh, mën a def lañ bëgg a def ci seenu njaboot ak seeni jëmm ba ci loolu lislaam da ngay gis ne da cee sonn ci ñuy wax zimmi yi danaa ci ñëw ci kanam moo ñi nga xam ne du ñuy jullit waaye ñu ngi ci réew yu jullit yi ñooñu nga xam dañ daa joxe galaat su demee ba màggat te mënatuñu lislaam maanaam baytul maal moo leen war a yor yor seen bopp ni noonu ci ay jamono su fekkee ne booba jaam daana am loolu amatul moo tax kenn du ci kenn du ci du ci sonne noonu euh, du ci sonn ñaareelu pàcc bi walla catégorie bi mooy ay mag ñoo xam ne dañoo toll ci ay at fenn fii ñooñu nag xam nga ñaar lañ ñii ay wajur lañ ñii duñuy wajur nañu jëkkee ñi dul ay wajur xadis nee na woon laysa minna man lam yarxam saxirana wa yaarifa xaqa kabirina yonent bi saasam nee na koo xamul yelleefu mag bokkoo ci ñun maanaam jullit balaa sa jullit a mat da ngay xam yelleefi mag da ngay xam yelleefi mag léeg-léeg am na ñoo xam ne baatu daruura la jëfandikoo foofu ngir wax ne loo xam ne maanaam du droit kese waaye maanaam dafay dafay nécessité ci lislaam dafay lu munta ñàkk moo tax da gis lislaam ni mu fonke mag maanaam bala ñoo sore rek suñ doon ñëw ci yoon wi ak ni ñu fonke mag sëriñ bi gis ngeen ay teggin ay teggin na ko waxee benn ba mu ngi aju ci wàllum mag mooy wet mag lu mu wax ci ci nahju qabail xaaji tariqatu l adabi rahmatu sagir kal abi wal ummi wa tawqiru l kabir la wax foofa nag maanaam mën nañu jàpp sëñ bi masalikul jinaan safla du masalik de nahju qabail xaaji sëriñ bi euh, soo ko doon xaaj ñeenti xaaj bu njëkk bi moom ci mag lay wax ci nan nga war a jëflanteeg ma wala tujaalis man yakunu akbara maanaam euh, yu mel noonu ci lay wax bul toog ak ku mag soo gisee mu soxla Euh, ku mu yónni nangam nangam yu baree bari foofu lay jëm ngir àq jooju sëriñ Moussa gis ngeen ko ba muy martial Serigne Touba lu mu waxoon sëriñ bi tax ba ndaw ñi màggal mag ñi sëriñ bi tax ba ndaw ñi màggal mag ñi ba mag ñu baax ñi far di jiital ndaw ñi waaye foofu euh, àq ji ji ma fi jublu rek mooy màggal mag ni ko lislaam ke ak sëriñ bi ni mu ko jàngalee. waaye lu mu ko jëmmale yare ci ba nga xamante ni bi mu fi jógee noonu la mbir mbir yi demee moom kon loolu mooy bu njëkk bi ci mag ñi koo xam ne dafa jëm ak mag rek ak koo xam ne dafa jëm ak mag boole ci di sa way jur moom beneen affaire ndax kooku leneen da cee rax ginnaaw mag gi mooy buumu deret googu dox seen diggante ak maanaam ñëwante gi doxoon ca ba ngay ndaw ak yu mel noonu moo tax alquran ne wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا maanaam na ngay jëflanteeg ñoom ci woyof gi ci nangul leen gi ak fàttaliku nañu sonnee woon ca yow ca ba ngay ndaw moo tax mu ne waqul rabbi irhamhuma kama rabbayaani sagira kon ci ci wayjur yi benn la waaye jur wi tax may wax fi mooy jur wi jëm mag ndax àqi jur moom dëgg la waaye àqi wayjur kese du dugg ci sunu tomb àqi wayjur wi jëm mag mooy dugg sunu tomb ndax foofu mooy dugg ci abdaaf mooy dugg ci faiblesse gi wala ci néew doole gi ndax xam ngeen ne sunu borom ni mu ko waxee ci suratu Ruum nee na allahu alladi xalaqakum min daafin summa jaala min baadi daafin quwa summa daafan wa ba yàlla moo leen bind ngeen di néew doole mooy ba ngeen di doog a ñëw ci àdduna mënalu leen seen bopp dara ngeen di dem nag ba suñu borom roof leen kàttan ngeen di waaxoo ko daw di waxambaane wu dëgër mën a yëkkati bërigo mën a dox say soxla waaye nag dana desiwaat nag suma jaala min baadi euh, quwatin daafan wa shayba mujj nag màggat ba bi jaaw te ba bi jaaw rek maanaam màndargam néew doole la ak la ca des mën na ko bañ a doon la ca des moom mag yéen yàlla nañu sori ba ca kanam a kanam te mooy li ñu ne euh, bijjaaw dana doon ab leetaram muy faatu dama bëgg dund ba ca kanam ndax liggéeyal lislaam su ko defee mag mi tey way jur kon noonu la mel ñetteel bi mooy gone gone nag waxoon naa ko ci néew doole gi fa mu tàmbalee waxoon naa ko ci néew doole gi moom dafa tàmbali néew doole mënu dara moo tax jàpp naa ne gone yelleef yi mu am ci lislaam ni mu baree ak ni mu dan ni mu ni mu rankaloo néew na ngay gis ku amaat lu toll li ko waral mooy daa mënul dara te melagut nen nga xam lu muy man ca booba yaa koy manal lu muy mel itam yaa koy melal nu ko sallallahu alayhi wa sallam waxe woon kullukum yuladu ala alfitra wala kullu mawludin yuladu ala alfitra euh, la waxoon nit ki suy judd suy doog gane àdduna day weex tàll nee na lu mu mel rek ay wajur ma ko melal wala nañu wax euh, environnement environnement bi muy dund fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasraanihi aw majjisaanihi maanaam lu ñu mel rek ca gàttal daal ay wajuram ñoo ko mel waaye tam lu mu man ñoo ko man loo gone gi ci néew doole googu ak xel mu ñàkk mee mat moo tax mu bari ay yeleef ni mu ko waxee woon am na ci yelleef yu am yoo xam ne jiitu na ak ñëwam ci àdduna bokk na ci yelleef yi jiitu ñëwam ci àdduna ñu tànnal ko jur bu baax bokk na ci itam sàmm ko ci biiru wajuram wu jigéen moo tax su jëmm ji xasee mat mu am àq ak yelleef ci dund droit à la vie da koy am ca bu yàgg loolu moo tax fi ne lislaam dafay wuute ak euh, droit euh, subjectif yi bees yi ak ñoom noonu ñuy gënalee yelleef masalan bokk na ci euh, projet de loi bi nga xam ne xamaguma ba xam retiré nañ ko wala déet waaye li tax mu muuru projet de loi bi mooy dañuy wax ne projet de loi portant code de l'enfant dafa dafa ñëwandoo wala ñun dañ koo jotandoo ak projet euh, li jëm ci référendum yi muy li ñuy wax révision constitutionnelle ñu war a nafaraat constitution bi dañoo ñëwandoo nag bi ñu ñëwandoo moo tax ñu bare bari bàyyiwuñ ci xel waaye foofu am na ci ay bennat mooy yelleefu soxna si ci mu yàq li nekk ci biiram su fekkee ne xëy na daf koo jële ci loo xam ne daal euh, jaaduwul te muy soxna si ñu jublu mooy kuy kuy gone bokkul ak inceste nag maanaam gone la mi ngi jàng ma am na ci article dama xam cinquante-neuf la xam ma ci projet boobu day wax ne état bi dana foog maanaam mooy veillir sonn lool daal dana veye euh, ci ku tol noonu ñu mën koo dindil loolu nekk ci biiram ngir intérêt da gis ne foofu ak dundug lëm ak dundug lëm lañ bëgg a dindi benn yoon ngir intérêt boo xam ne sax ma nañu jàpp ne supposé la supposé intérêt la waaye ndax ndax intérêt la ndax doomu adama bi su suñu xasee naf ruux gi suñ xasee wal ruux gi ci biir biirum ndeyam mat maanaam doon na doomu aadama xëy na nag ku ko yàq ak daane ci teg mën naa ba a bokk ak ku yàq ni koo xam ne judd na ba mat waaye dund ngoog dund googu nag la tax ñu war koo mën a dindi luy doon lu rëy soo gisee dañ naan dañuy gam-gamle ndax su ñëwee maanaam su doonee su naree juddu su naree yàqal dunduk ndeyam te dund ndeyam moo gën a assuré ndax am na ba noppi foofu mënees sa ko dindi ci fuqaa yi waaye nag ñu ne intérêt rek ñu dindi ko nga gis ne foofu lislaam lu lu lu mu bàyyi xel la euh, projet boobu itam loolu man gis naa ko ci euh, boobu bokk na ci àq yi nga xam ne euh, gone gi am na ko te ñëwagul ci àdduna nga xam ne jënin lay doon embrion maanaam ñëwagul waaye am na àq ci dund kenn sañu koo avorté bokk na ci itam nag li ñuy wax al maanaam ñu war a koo sàmm ciw yaramam euh, bokk na ci maanaam ñu wutal ko turu rafet bokk na ci li ñuy wax droit à la garde maanaam am na yelleefu nag ñu war koo yor foofu da gis ne lislaam da cee sonn lool su fekkee ne mu ngi ay juróom su fekkee ne ay juróom nekkatuñu fi moo xam dañoo faatu wala ay waajuram dañoo nekkatul ngir am passé yooyu yëpp lislaam da koy jox naan su fekkee ne amagut nangami at nañ ko jox ndeyam su fi ndeyam nekkut maamam ji jur ndeyam nangam nangam yooyu nga xam da ci sonn lool loolu nag yelleefi xale bi la kenn sañu ko koo euh, nangu ci moom comme nañ ko waxoon ci xasaais wala ci critères yooyu amoon ci ci loolu bokk na ci yelleefam itam muy ñu jàngal ko bokk ci yelleefam ñu yar ko bokk bokk nag yi ci maanaam droit bi mu am ci dignité li ñuy wax dignité humaine maanaam karaama teraangaam ak gëddam doomu aadamaam ni ko ñëpp amee noonu la ko amee kon am na lu mag ñi am am na leneen lu mag ñi amul ngir maanaam uh, néew doole googu mu néew doole la ci lislaam di bàyyi xel gis nga foofu lislaam da cee sonn sonn ci sonn ci ba gone gi léeg-léeg sax maanaam dan barkeem ñeneen danañ ci taasu ñeneen danañ taasu ci barkeem ci yelleefam alquran fi mu naan ci ci ñi nga xamante ni suñu borom dafa dogal ñu nekkatuñu ki nga xamante ni dafa dafa doon jigéeni wérut da gis alquran naan wa in kunna ulaata xamlin fa anfiqu alayhinna xata yadaana xamlahum su fekkee dañoo toll foofu dee leen dundal di leen dundal ba keroog ñuy ñuy mucc loolu fii ne mi ngi taasu ci barkeb doom bi mën ngaa wax sax idda ji la waaye lan nga xam ne itam xëy na du idda kese mooy fa in ardaana lakum fa atuhuna su ngeen demee nag ba mu mu mucc moom soxna si yelleefu doom ji ci dund ak ci ñu dundal ko dana waral dee leen dundal ndeyam ndey ji sax su nangu wuta su nangu wuta e, nampal doom ji wut leen ku ko nampal te ngeen fay ko nga xam loolu ci yelleefu e, gone gi gis nga am na ñeneen ñoo xam ne danañ ci taasu xëy na guddi na waaye dañ koy jàll ci ñeenteelu e, pàcc bi ñeenteelu pàcc bi mooy jirim yi jirim nag Serigne Fallou Ndiaye ñëwoon na ci euh, xam naa lam ci wax dana doy sëkk rawat na moom ci foofu lay yëngu kon dañ koy daal di euh, jàll euh, dem feneen waaye ci jirim dama cee bëgg a taxaw ci tomb bu am solo mooy soxna jigéen joo xam ne jirim la maanaam ab jànq boo xam ne jirim la lislaam da ciy sonn lool ngir li mu amul ku ko taxaw wala boog bàyyi ni mu mel ci nit xëy na su fi baay bi nekkut mu bañ rek ko ku jaar ci kawam ci bañ koo jox ak can wala lekk xaalisam bu mu doonoo ci waajuram moo tax lislaam euh, gis nga aaya boobu mu ci indi yastaftuunaka fi nisaa qul illaahu yuftikum fihinna da ca tag wa maa yutla alaykum fi lkitaab fi yataama nisaa ak lam ca lam ca teg ci loolu ma junjoon léegi ci wolof ci niñ leen di sàmmee bañ leen a nax ci seenu can bañ leen a nax ci alal ji xam ne dañ koo doon noo ci seen seen waajur jëriñ boobu sax dafa am àq ci baytul maal euh, comme alxataab bi mu jëlee ci albarzari ci ay sëriñam te loolu fiqu maliki la mu ne kooku su demee ba war a sëy su demee ba war a sëy te xam nga ci suñu mbokki naar yi bagage yi néegu sëy ñoom dañ koy bokk maanaam góor gi day joxe jigéen gi di joxe mu ne kon nañ ko tëj xiis mooy nañ ko waajal ci euh, alali baytumaal xëy na su fekkee ne la muy la muy toggee wala yu mel noonu moo ko war a jënd su fekkee ne frigidaire bi moo ko war a jënd moo xam frigidaire wala frigo lu mën doon mën nañ ko ko su fekkee ne am na ci baytu te muy ku ñàkk nañ ko ko nañ ko ko euh, nañ ko wutal foofu itam ma ne sa jee dugalaale famille boo xam ne dañoo ñàkk kilifa rawat na su fekkee ndey boroom kër ga kooku dafa am ñaari ñaari yelleef yoo xam ne bokkuñu yelleefi fan yu njëkk ya ak yelleefi suivi bi maanaam la cee topp yelleef fan yu njëkk ya gis ngeen euh, ni nga xamante ni noom la ko abdullah jafar jaafar sadiq waxe bi seydina jaafar sadiq noppaloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ali jaafara taaman faqad jaahum maa yushghiluhum waa kër jaafar defal leen to dem leen ngeen toggal leen aw ñam ndax tey jii am nañ lu leen doy loolu maanaam lu am solo la ci yoon wi sax dañ koy def bu baax a baax ndax nit ki su fi jógee daanaka dëkkandoo yaag mbokk ya ñooy taxawu ñam wa waaye itam lenn jar na cee bàyyi xel taxawu ñam woo xam ne lépp mën naa am ci alali ki fi jógee lañ koy defe suñ ko joxee ci alali ki fi jógee itam nañ bàyyi xel leen maanaam lu yam te doy waaye da gis daal ñu koy def naan lépp doy rek te am na ci xale yu ndaw yoo xam ne xamaguñ lu bari ñi fi ñëw ñëwaluñ leen xëy na sax ñuy joxe ci njaal mi duñu leen ko jox su fekkee ne ña fa mag doon nañ ñeneen dañ ko def seen poche ba pare saraxale ci seen alalu baay ji ñu bokk loolu itam euh, dana xaw a kii lool. beneen itam ci ñi fi ñëw léeg-léeg dañ koy jaalee mën nañoo bari lool waaye kuy ñëw loxo yi neen ngay indaale sooy dem mën naa am da nga yóbbaale nàkk da nga sa biir dana fees nangam nangam jeex na su semaine bi jàllee fàtte nga ko. loolu itam du bokkut ak ni ko ni ko lislaam ni ko lislaam digle dafay war a am e, jàppale leen bu baax a baax njaal mi itam ni ko defee baax na waaye na bu mu doon njaal mu ñu bind bu mu doon itam diw nangam la ma joxoon wala diw joxuma woon kon nangam laa ko war a jox wala du ko jox e, bokk na ci itam mën naa dugg ci néew doole gi foofu koo xam ne ak njaaxle moo ko dab njaaxle gi mooy doom juréer wala lu jëm ci wàllu googu su doon ci misaal ku doom de ku mu déggoon doomam xëy na dem ci gaal yi wala gëj na ko gis wala koo xam ne ci tefes gi la doom doon foye réer na mu koy wër ca jamono joojee tembe wala yàlla tere koo xam ne ci xeeti oto bu dal ci moroomam foofu ci jaxasoo googu mu àndoon ak ak njaboot jaxasoo googu mu jaxasoo ak fitam woowu noonu muy demee itam am na yelleef am na droit ci ñu dalal ko defal ko ànd ak moom wëral ko ay doomam ba xam ci fan lañ mujj loolu itam bokk na ci yelleef yi nga xam ne euh, sallallahu alayhi waxoon na ko wa tadullu euh, wa tadullu al mustadilla ala xaajatin lahu qad alimta makaanaha euh, ci la bokk juróomeelu bi mooy ñi nga xam ne yàlla da leen def ñu doon sëy ba ci àgg te sëyeetuñu lislaam daf cee sonn ci nañu toog ci kër gi ci nañ leen joxub yóbbal ci yu bëree bëri ci yooyu yóbbal boobu sax xëy na foofu fuqaa dañ ci wute dañ ne la ñeneen ñi dañ ne lu war la waaye comme soo gis ñun ci sunu ngir ci ni ko jàng ci usul dañaan la yóbbal bi mustahab la man la koy firndeel ñaari wax mataan ala al muhsinin la wax fii daal ne mataan ala al muttaqina fële maanaam ku sunu borom dogal muy sëy ba ci àgg sëyatul te yàlla miy def ab sëy mooy def ak tàqali ko maanaam delloowaat ko ca njabootam waaye nag ci njëkk ak teraanga jërut nag mu naan ko fi mu ngi nii lu ma ko mos a digal mosu koo def lu ma ko tere mosu tere mosu baax xam nga loolu amul amoon du ngeen fanaan ñaari guddi kon la amoon ci ay jafe-jafe yépp fàtte ko jëru ko tudd mi ngi nii yóbbal ko mooy su ne mën nga koo xottil ay ndima yu baax ak lu muy àndal jox ko bu yóbbal mu dem soo demee nga wax wax ju rafet ah yàllaa ko dogal kat bëgg yu ma ko woon su ko defee muy jàmm la ca na caa toppaat ndax kat wa yatafaraqa yughnillaahu kulla min saatihi te itam laalla allaha yuhdisu baada dalika amra mën naa am nga ba càag nga bëggaat ko mu bëgg la am na ci wax joo xam ne soo ko waxoon soo ñëwaatee fi moom daanaka yàgg ku yelwaan moom yéen a yëpp kon loolu itam euh, lu ci baax la boobu ci la bokk muy yóbbal bi ak itam bañ bañ koo tëyee di ko naqaral wala tumsikuhunna duraara li taatadu juróom-benneel bi mooy ñi nga ne seeni i kër nag dañ fee nekkatul maana dañoo dañoo faatu ñooñu itam euh, foofu nag al ayaama gi alquran indi al ayaama day firi ñaar day firi man laa zawja lahu waaye tam day firi al aanis al aanis mooy ku boo amagut maanaam koo xam ne li ñoo ab caga ngeen jégal ma ci baat baatu wolof la nag Euh, ñaar yëpp itam da nga gis alquran na wa ankixu l ayaama minkum wa saalixina min ibadikum wa imaikum dajaa teg in yakunu fuqaraa yugnihim allahu min fadli ñooñu na ngeen leen wutal ay borom kër ndax dañoo bëgg dañ leen a bëgg a sàmm ba duñu tàbbi ci loxoy saay-saay am na ñoo xam ne moom suñu la dimbalee moom yàlla tere mën nañ laa def loo ak mooy ndax dañ du def ngir yàlla lislaam nag ñu mel noonu leen jox yelleef joo xam ne nañ leen aar suturaar leen ca la ñuy soxla ba keroog ñuy am boroom kër mbaay soxna ñu bañ a egg fenn fi ba saay-saay yu bañ a egg ci ñoom ba di leen dimbali ndax Sëriñ Tuubaa nee woon na ku la sañal la yàlla nay ka war a sañal euh, kon waxoon na ne asaayi ala al armalati wa miskini kal mujahidi fi sabilillah kii dimbali armala bi maanaam kii dimbali ki boroom kër ki boroom këram nekkul mi ngi mel ne ku jihaad ci yoon yàlla dimbali ko ci ak njabootam dimbali ko ci ab dépense am ak yëpp rek ba yiir ko yërëm ko ba leneen dafay am loolu itam xëy na lu gàtt rek dana ci jar a bàyyi xel mooy ña mu gën a feddali ko ci ñoom maanaam ña mu gën a war mooy ñi nga xam ne dañoo doonoon wëllëre yi ki fi jóge ñooñu moom war na ci ñoom wala boog dana gën a war ci ñoom ñuy nemmiku njaboot gi soxna yi rawat na ci point bi ak di xool li ñu soxla ba ab safaan du fi ñëw waxuma nag koo xam ne maanaam ñi muy sàmmoonteel coloré mooy ñi nga xam ne dañoo amoon wërsëg su jegee mu tàmbali dafay ñëw tànk yi di fi bari naa ko man kat coloré gi laay dox fekk xëy na dafa bëgg dugg ci ak ngoro su boobaa takk soxna si lekk wërsëgam gone yi maanaam daanaka duñu mujj fenn loolu ñuy wax li ñuy wax rek mooy ñi rawat na ñi nga xam ne dañoo mënut wëllëre yi nga xamante ni am na lu ñu mën a ko su néew ñu leen di bàyyi xel juróom-ñetteel bi mooy li ñuy wax faqir ak miskin faqir ak miskin nag dafa am ak wuute ci fiq kan moo ci tane moroom ci kan moo ci tane moroom ci ñi dañ ne faqir moo moo tane ñi ne miskin moo tane waaye ibnu al arabi al maliki nag moom ba mu waxee la wax ji farankulaa yi nee na jël te sonn kan moo ci tane moroom ci faqir bi soxla na ndimbal miskin bi soxla na ndimbal jeex na yoo kay dimbali rek ndax kii mooy ki nga xam ne amagu amul dund bu at wala mooy kii nga xamante ni xëy na su reeree du añ nee na loolu amut solo faqir bi su reeree dana añ ak miskin solo li am solo mooy faqir bi soxla na ndimbal miskin mi euh, soxla na ndimbal ñooñu nag dañoo am yelleef ci alali jullit ñi su baytumaal doon am dañ leen koy jox soo amul soo génnee asaka da nga leen koy jox ni ñu leen koy joxee day egg ci sax dañ jàpp ne koo xam ne dañ ko jàppee faqir ngir dafa dugg ci beneen rubrique maanaam ngir dafa am leneen lu muy koo xam ne dafa war a liggéey par exemple ñu jox ko ci ngir mu mën a ubbee bitigam wala yeneen ak yeneen yu bare bari ngir lu tax ñu ne faqiir la dafa munta amal boppam capital bu muy tàmbalee liggéeyam kooku itam am na àq ci ñu di ko dimbali ci loolu euh, su fekkee ne baytumaal la ñu dimbalee ko ci sunu baytumaal euh, kilifa yi nga xam ne ñooy kilifa diine yi te ndimbal di leen di jóge ngir ñu war koo tasaare ñu bàyyee ci noonu xel ñooñu nag suñu borom daf cee teg ay daan ci koo xamante ni sàmmonte ko ni nga xamante ni noonu la noonu la diggee ñi ko sàmmoonte dégg nga fi mu naan walladina fi amwalihim xaqu maalumun li saaili wal mahrum ca mujj ko dane ulaika fi jannatin mukramun ñi nga xamante ni seenu alal dañ cee sàmmonteeg àq ji nga xamante ni kiy laaj ak ki ñàkk dañ ko koy jox mu ne ñooñu danañ sax ca àjjana yi ñu leen di teral waaye ña ca des kallaa bal laa tukrimuuna al yatim wala taxubuuna ala taami miskin ak inna alladina yakuluuna amwaala yataama zulman innama yakuluuna fi butunihim naara yu bëree bëri juróom-ñeenteel mooy prisonniers yi daanaka ñun du ñu jonjoog prisonniers yu yu bëri moo tax kooku dama koy dama koy jéggulu euh, fukkeel ba mooy ñi nga xam ne ay bor da leen a diisal ñi nga xam ne ay bor da leen a diisal nag bu mu doon bor boo xam ne xay na ci mooy yàlla moo ko waraloon wala koo xam ne ab safi la moom bëgg noo ab noo bëgg noo sa li gone di wax mbuumbaay rek moo tax kooku taxul ñuy wax waaye koo xam ne dafa leb ngir xëy na këram goo xamante ni war na koo xadd wala ngir euh, place am ba muy liggéeyee fa mu koy lu mel noonu moom mën nañoo jàpp ne lu yenu maanaa la wal xaari mi nekk ci la nekk loolu sax moo taxoon lislaam ne képp koo xamante nii yàlla dimbali la nga ba nga yore wërsëg soo lebalee nit te jamonoom xaw a naqari na ko dimbali niggandiku ko ba jamonoom neex wa in kaana du usratin fa nadratun nee na euh, am na ci waajoo xam dafa demoon bay war a faatu malakul mawti ñëw war a jël ruuxam ngi ne ko hal alimta min xayr hal amilta waaye ndax mos ngaa def lu baax mu xool ba jàgg bi ne ah, xam ma ko de mu ko te nga xool rek mu hee ma man kay mosuma xam lu baax lu ma def ah xanaa leen nu ma daa jëflantee de moom su ma jëflanteeg nit te muy ku xaw a néew doole su ma demee ba xam ne mënu ko dama koy far jéggal bor bi soo am na sax waaye jëkkuwu ko lool ma far ko man négandiku ko ba keroog mu koy man su demee ba ma xam ne mënu ko ma jéggal ko ko ñu ne kon loolu man ñu ne ko tàbbil tàbbil àjjana hmm. loolu rek nga xam ne jër oh, du wax rek sax ndax yàlla jël ta xeebal dara waaye ci loolu daal da ko sunu borom subhanahu wa taala tàbbale àjjana ci lu mu xam ci lu mu def ci lu baax foofu itam léeg-léeg nit ki mën naa yanu bor am na ñoo xam ne dañoo baax lool te mënuñoo seetaan nit ki muy mu dund ci souffrance léeg dañ koy gàddu léegi loolu itam ci la bokk ku mel noonu itam am na yelleef ci ñu ko ñu di ko fayal da ngeen di gis am na ci kilifa noonu lañ mel ku mel ne sëñ Masamba dañ ko ci daa moom foo ko tuddee bor walla jaaxle soo ñëwee moom dana la ko fayal su ko yoree su ko fay itam dana lepp fayal la ko léeg-léeg nee ñu daana ci ay jafe-jafe ndax léeg-léeg dañ ko takk taxawal te du fa nekkagum mu war a xaarandi loolu ñëwaat euh, Xubaysat ibn Muxaariq waxoon na lu mel noonu damaa yan woon na nit bor ba mu demee nag ba mu jafe lool ñu taxawuma ci ma ñëw ci yonente bi sallallahu laa wa sallam ko wax nee na mu ne yaa Xubaysa inna in masala la taxillu illa li ahadi talaata nekkoon ko laaj moom ñett ko sañ ba mu ci njëkk wax mooy rajulun tahammala hamala ki nga xam ne dafa yanu dafa yanul nit bor maanaam dafa garanti nit fa xallat lahu lmasalatu xata yusibaha suma yumsik kooku sañ naa laaj su demee nag ba fay ko léegi nag mu mu mu mu taxaw kon loolu euh, mooy fukkeel bi ci yooyu fukkeel beeg benn itam dana tax a nekk ci euh, ci position de faiblesse mooy ñi nga xamante ne dañuy liggéey ci ay barab maanaam moo xam mbindaan lañ ko tudde wala ñu ko mën a tudde wala boom ñu ko tuddee rek foofu nag ci sunu barab yi danga gis ne léeg-léeg jëflante bi dana xaw a des suñ ko doon gam-gamle ak li ko sunu borom subhanahu wa taala may gis nga ummul muminina aïchatu radiallahu anha waxoon na ne yonente bi salallahu alayhi wa ci ni mu daa jëflante doo ko dégg mukk mukk mu gëdd kuy liggéeye ci moom du gëdd mukk wala li Seydina Anas waxoon nee na liggéeyal naa ko fukki at mbindal naa ko yonent bi saa la waaye musumaa wax maanaam baat bu ñaaw musumaa wax ne lu tax def nga def naa nga wala lu tax defoo nangam waaye da gis ne ci suñu jamono ji nit ki su fekkee ne dafay fay nit ki weer daanaka day jàpp ne moo ko moom day feeñ ba ci jëflante bi xale yi di jëflanteeg kooka te léeg-léeg kooku di fi liggéey dana leen mat ndey waaye dañ koy sàllawlu léeg dañ koy gëdd dañ koy yónni ci lu ñàkk ñàkk solo te lu wuute la ak euh, ni nga xamante ni moom la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digle woon ndax dana woon di leen ko ci seenu ñam su doonee lu tuuti bu mënu leen ko cee mënu leen ko cee woo ngeen tibb tibb wala ñaari tibb jox ko lu mu tudd tudd bu leen lekk wàcc ko maanaam day tere ku gëdd te mosu koo def kon euh, loolu itam ci la bokk lu jar bàyyi xel la ci jamono jii rawat na léeg-léeg ñooñu dañ ciy boole duñ liggéey benn liggéey ñooñu la ñuy dénk gone yi ñoom lañ leen di yóbbu ñu leen di yóbbu ñoo leen di yónni ñu leen di yóbbu école ñoo leen di toggal ñoo leen di fóotal léeg-léeg ñoo leen di ménager ak yu noonu lépp ci as juróom benn junni wala nangam nga yaakaar ne yaa ko moom sañ nga koo wax lu ne nga xam ne daanaka doo ko jàppee ab nawle loolu tam maanaam yelleef la yoo xam ne ci euh, sunu réew mii di Sénégal dese nañ cee bàyyi xel waaye lu jara lu jara bàyyi xel kenn beeg ñaar ci way néew doole yi mooy li ñuy wax minorité rawat na ñi nga xam ne dañu doonul ay jullit te ñëw ci réew yi ci réew yi jullit yi ñooñu zimmi lañ leen di tudde ñooñu dañ leen war a sàmmal seen yelleef lool dañ leen war a aar war leen a may yelleef yi diine dañu ñu di ko def ci ki kenn du leen gàcc ne da ngeen war a dugg ci diine seen diine la yor laa ikraha fi diin moo ñuy àtte su ko defee kenn du leen wax bàyyi leen seen diine ji kenn du leen wax du leen jaamu seen li ngeen gëm dañ leen bàyyi ci noonu muy xeeti nasaraan yeeg yu mel noonu ñu nekk ci kenn du leen tere dara li ñuy sàmmoonteel daal ñoom mooy nañu xam ne sunu sunu sunu kaaraanga gi sunu diine ji ñoom duñu ko duñu ko yàqal gudd la itam waaye daanaka dañuy junjowut lool lool moo tax duma ma ci sori fukkeel beeg ñett da yaakaar naa ci lañ toll mooy ab doxandéem ibnu sabil doxandéem doxandéem lu mu bari bari bari alal su ñëwee cim réew mu dëkkul rek day tumuraanke moo tax nga gis euh, naar ba lu mu waxoon xaribu xaribu daar yi mu ko xati laysa lahu sadiqu jamia sualihi ayna tariq ku tumuraanke amul xarit soo gis fu mu fu mu nekk rek fi mu laaj mooy yoon yi fu mu ba ci jamono yi moodu moodu yi tam noonu mu nga gis moo leen dal fu ñu toll seen xel nga ci réew ma léeg-léeg sax dañuy laaj bay laaj loo xam daanaka amul njariñ xam ne suñ nekkoon ci biir Sénégal suñ nekkoon Dakar duñ ko laaj dañ lay laaj mbaar sànga maag di lay laaj aw wajan ak yu kenn xamul waaye fii ne li ko waral mooy dañuy namm dañuy mel ne ku fi ñu nekk moo tax luy takk ci seenum réew lu mu tuuti tuuti maanaam dafay dafay takk ci ñoom dañuy dañuy gis naa ci yenn étudiants yoo xam ne ba ñu nekk ci réew mi dañ daa yónnu ba naan nañ leen yónnil ay géej ak leen yónnil maché kenn xamul xëy na lu ñu leen di fàttali lay doon rek ñooñu nag moo tax lislaam dafa bàyyi lu ci ñoom xel bu baaxa baax ñu ngi leen di bàyyi xel ñooñu itam beneen mooy kuy dox mën naa doon ku am wërsëg fa mu nekk waaye ay situation ak fii mu nekk yur dara xëy na amul wari buñ ko yónnee wala wari bi paan na ñu jàppale ko ci la mu dund donte lu gàtt la maanaam añ jot na ñu jëndal ko añ ak yu mel noonu ak lu mu bari bari alal loolu itam àq la ibnu sabil maanaam muy muy doxandéem bi loolu daf koy am bokk na ci itam mooy ki nga xam ne day laaj kii laaj mooy yalwaan fii moom xam nañ ko bu baax a baax ci Touba am na nag benn loi bu fi génnoon boo xam ne day tere yalwaan ci li ñuy wax euh, lieu public mooy barab yi nga xam ne ñëpp dañ fay ñëwandoo muy garan place yi jàkk yi euh, wala barab yi ñi ci des ci lañu jaamoo seen borom waaye alquran sëriñ bi alquran du wax dara ngir wax walladina fi amwalihim xaqun maalum li saail wal mahrum foofu ñu jàng xam nañ am na lu ñuy wax al ima nekk foofu mooy sabab bi li saail wal mahrum alquran waxaat ne wa amma saaila fala tanhar kon laaj dëgg la jërut di yaatal jërut di sukkandiku waaye situation dana ci yóbbee nit ki nit ki dana loru ba nga xam ne nag munta a laaj loolu tax lislaam ne jox ko soo ko mënee jox soo ko mënut jox nga jéggulu ci njëkk ak teraanga gis nga ci ñun wolof dafa am baat yu rafet yi ñu wax wala ci eh, murit gi bokk maanaam sarax ba dem na wala jéggal ñu ko ba beneen yoo teg nga koo jéggal ba beneen ah sarax ba daa mel ne dem na mooy wa ama saaila waaye saytaane ak jax-jaxa gi muy def ci xol dafa am ñoo xam ne da leen gëm gëmloo ne ku ñàq am loolu leen di loo kon ñaan kii daal daa yaafusal lan moo tax muy kii dama liggéey nga naan keneen kii naan la yow loola daal da ngaa patt da ngaa lag ak yu mel noonu dama liggéey am na ñoo xam danaa leen gis nga soo dof dof loo ba joxe ko wala soo joxee danga ñàkk soo ñàkkee da nga torox ndax keneen du la dimbali loolu loolu léeg leen dana tax ba nit kii du joxe waaye yelleef la boo xam ne kii laaj daf ko ndax kii laaj maanaam apa meloom nii ci kaw bu mu la bu mu tax nga yaakaar ne kii wërta ndax mën naa am mbubb mi mu sol sax dafa génn fii léegi ñu jox ko mu sol loolu mën na ci am mën naa am muy koo xam ne dafa génnoon di liggéey yi wutum xëy te amul te kër gi la bàyyi njaboot koy itam loolu yooyu mënta ñàkk àq la joo xam ne maanaam yowmal qiyaam yàlla daf koy laaj te su ngeen gisee suñu borom li mu wax ci suratu tawba والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله dane fa bashirhum bi adabin alim ñi xam dañuy rënk dañuy dajale xaalis ak wurus maanaam moo xam ci coffre-fort lañ koy dajale wala ci compte bancaire yi wala dañ koy def ci condamné wala ci ron ngegenaay wala ci suuf matelas bi fuñ ko mën di def waaye daal wala yunfiquunaha fi sabilillah dañ leen di laaj ngir yàlla duñ ko jox fa bashirhum bi adabin alim mbugal mu méttee métti mu ne nu mu demee yawma yuxma alayha fi naari jahannama fa tukwa biha jibaahuhum wa junubuhum wa duhuruhum maanaam nee na dañ koy soy ba mu xonq ñu leen koy ñaas ci seen digg ginnaaw yeeg seen jëy naan leen hada ma kanaztum li anfusikum mu lii ngeen doon denc nag fa duqu ma kuntum taknisun mos leen ko nag gis nga kon nay ba tax nag ngay xas ab jaambur ëpp na Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne radiyallahu anhu digal na képp ko aju ci man bu muy blessé sentiment waa suuf si maanaam wax nit ki lu ko naqari sëñ bi joxoo nit ki doy na sëkk nag waaye di ko ci tegal ay baat moom euh, daa mel ne xanaa ëpp na te itam nit ki mën nga koo jox sax ci sa rafet njort rek yàlla fay sëñ Tuubaa wax na ko nee na joxe ñaar la joxe ku baax ak joxe safaan nee na soo joxee ku baax maam sëñ si indi na ko ci ci jawaamiul kalim nee na soo joxee ku baax jox gi nga koy jox da lay dimbali ci nga mën a topp yàlla soo joxee ab moykatu yàlla nag jox gi nga koy jox da lay ci nga mën a moytandiku tere yi am na xadis bi ci ñëwoon yonent bi saa sallam na benn waaye dana woon la la atasaddaqanna layla bi sadaqa nee tey jii moom danaa sarxe bu jóge sarxe sa waay génnee ab saraxam ci guddi gi far tase jigéen mu jox ko ko ndekete kuy jaay boppam la ko jox mu xëy gars yi di ko waxtaan hey hey moom de ku jaay boppam la ko la ko def mu ne ah allahuma laka alhamdu ala zaniya sant naa yàlla man mi ko jox te yàlla mënoon maa def may ku mel noonu mu daal tey jii nag moom ci guddi gii danaa saraxewaat mu génn boo mu génnee di saraxe taseeg benn waaye mu jox ko ndekk ko jox ku riche la gars yi ne ko hey moom da xamul li mu def ku am la ko jox mu ne allahuma laka alhamdu ala gani yàlla sant naa la ci ci loolu ci ki am ba ma mën a am lu ma ko jox waaye tey jii nag moom danaa sarxe génnati bu mu génnee te seeg benn waaye jox ko ko ndekete waa jooju moom itam kuy fab yi fi jàmbur la daa génnoon ngir jëlee fi jàmbur gars yi di ko waxtaanee ci noonu mu santati benn malaaka ñëw ne ko waaye yow moom la nga def yàlla nangul la la ko te yàlla mën naa def soxna sii di jaay boppam mën naa def mu tuub ba téye boppam aji woomal ji yàlla mën naa def ba mu delloo suñu xelam ba muy joxe ci am xelam kii nga xamante ni itam mooy kii jël alal jaamur yàlla mën na koo dimbali ba dootu ko jëlati te loolu lépp ci lo sarxeem bi ak ni nga xamante ni noonu la defee ngir yàlla seetuñu leneen moo ko tax su doon nag keneen koo xam ne day jànni nit ñi wala di xool melow nit wala la mu sol wala ay cëram yu mat ak yu matut yooyu mën na ko ca bañ am te loolu rek ci la ko yàlla euh, tàbbale àjjana kon euh, fukkeel beeg juróom te moo ci mujj mooy ñi nga xam ne nattu leen daal ci xeeti jëyee yi am kër gu jommi wala ayas billah fu am wal ñëw yóbbu dafa nekkoon moo li ñuy wax inondation ak leneen ñuy wax euh, catastrophe naturelle yi nga xam ne day dugg ci nit jël alalam jëpp maanaam comme yàlla tere yooyu di naaw rab yu ay naaw jaar fenn tool ba la fa nekkoon lépp ñu jël ko danay am léeg-léeg wala koo xam dañoo jël alalam jëpp bu diggam lépp yooyu yépp rek maanaam am nañu yelleef ci ñu dimbali leen ba ñu jóge foofu am na yeneen yu ma tudd comme ku ñu tooñ waaye yooyu dafa jëru tudd su ngeen gisee fukk ak juróom yi ma tudd dama koo tudd tudd yelleef ya muy àndal waaye am na ci xeeti yelleef yoo xam ne nag ñeent la ba juróom ñépp a ko bokk ñépp a ko bokk benn aar ci diine day am ñaar aar leen ci yaram ñett aar leen ci li ñuy wax seen nafs ñeent aar seen alal ci diine moom xam ngeen ne diine ju doon ñaare ñaare ña koy topp ña koy njëkk a topp mooy ña gën a néew doole lu ko waral mooy diine moo aar ñi néew doole xoolal ñooñu njëkkoon ci lislaam ñu ci bare bare rek ku deme ne Suhayb Ruumi Salmaan al Farisi Seydina Bilaal ak ñeneen ñeneen ñu bare bari Abdullah ibnu Mas'ud ima ay mawaali lañuy ñu doon wala sax ñu doon ñoo xam ne dañ leen a xawoon a yilif waaye dangay gis ne ñoom ngir ne lislaam da leen a da leen a bàyyi xel lool moo tax ñu ñu ñu gaaw a ñëw woote yépp noonu lay mel arab diine benn da leen yërëm sallallahu alayhi wa waxoon na ne dee leen ma sàkku ci ñu néew doole ubxuuni duafa hal tunsaruuna wa turzaquuna illa bi duafaikum moo tax itam safaan ba ñu doole ku leen di leen di gën a néewal doole kooku moom wala iyaadu billahi taala mën na cee am lu ko ci dal xam nga am na xadis bu ne udibat imraatun fi hiratin sajanatha la xabasatha laa hiya ataamatha wala saqatha id xabasatha wala hiya tarakatha taakul min xashaashi al ard nee na am na ci soxna jënn jigéen joo xam ne la tax ñu mbugal ko la tax ñu tàbbal ko sawara mooy am muus moo xam daf koo tëj euh, xont ko bàyyiwu ko mu dem mën a fori loolu nag dama bëgg dugg ci tamub sëñ Ahmadou Samb bi ndax dana wax ci xuququl xayawaan moom sëñ Ahmadou Samb loolu moo tax ma yaakaar na foofu duma ci sori mu ngi koy def dimanche le 20 ramadan allah sëñ maa ngi leen defal publicité sallallahu alayhi waxoon na ci loo xam ne itam euh, Abdullah ibn Amr ibn Aas moo ko nettali woon nee na arrahimuuna yarhamuhum arrahman daan irhamu man fi l ardi yarhamukum man fi sama ñiy yërëmee yàlla da leen di yërëm yërëm leen ñi ci suuf sunu borom subhanahu wa taala yërëm leen euh, ñaareel bi ci diine yi ñetteel bi sax mooy jàngal leen nag muy gone yi muy jigéen yeeg yi mel noonu gis ngeen sëriñ bi ni mu fonke woon jàngal tout tànk ak yar leen ak ñu fonke woon jigéen loolu itam day àq joo xam ne dañ leen ko yoreel waaye ñu néew doole ñëpp a ko yoreel lépp jàngal leen ak anam gu man doon dañ koo dañ koo am ñeenteel bi lislaam daf koo bañ ba yenn ci warteef yu metti yi yenn ci warteef yu metti yi lislaam da leen koy teggil wala da leen koy woyofal gis nga lu jëm ci koor fu néew doole amee rek lislaam danaan la may naa la nga dallu ba mu jàll maanaam ngay tukki ci tukki bu ko mat ñu ne la da koy da ngay da ngay da ngay dog soo ñëwee fay ki nga xamante ni day nàmpal te mu néew doole wala mu ragal ci doomam kii nga xam dafa toll ab diggante te mu new doole ci doomam yooyu yépp dangay gis ne ahkaam shar'iyya la maanaam atte la ci sharia yoo xam ne lislaam da koo woyofal nit ki ngir lan ngir néew doole gi mu àndal moo xam feebar la tukki la maanaam tollu diggante wala nàmpal ak yeneen ak yeneen lislaam daf koy gën ñaareelu sàmm gi ñu koy sàmm ak àqam mooy wallu yaramam ci yaramam nag jubluwuñ ci rekk faj gi faj baax na lool waaye aar yaramam ba du am ay gàllankoor yoo xam ne dafay jeexital ci euh, ak dundam ci wolof da dégg sax ñu wax lu am maanaa maanaam jur woo xam ne xëy na dalaa yónni demoo mu naan ah fayoo sama bor de ndax Euh, jur naa la yar la ba nga toll nii nga toll pattalu la la làggilu ma la loolu mooy riaya jasad bi benn la ci ngeen jégal ma ci ñaari baat yooyu xam ne mën na tëgg loolu nag dafa dugg ci darwaat xam sa yooyu te darwaat xam sa ca bokk xafzun nafs maanaam aar bakkan doomu aadama yi ba dara du ko dal nga xam ne dañ ne juróom ñaar juróom la yoo xam ne diine ju ñëw diine ju ñëw sàmmonte ak loolu nga xam ne daanaka mën nañ ne loolu lay sàmm sax boobu moo ci njëkk waaye bokk na ci aar gi ñu aar ci wàllum yaram aar leen ci wàllum euh, paj soo gisee programme boobu sëñ Macky Sall am euh, semi muy couverture maladie universelle lu mel noonu moo ko tax a jóg waaye fekk na yooyu ñu suñu mbokk tubaab bi nga xam ne yàggul fekk lislaam euh, rawat na ci jamono Omar ibn Abdul Aziz da ngay gis xilaafa gi ñu mel noonu ni muy ni muy sonnee ni muy sonnee ci ñoom loolu tam xëy na dana ci dugg ci côté bi ci mooy bourse familiale yooyu muy def ak doonte duggul ni ko noonu ñu leen di dimbali ci liggéey yi ñuy liggéey rawat na ñu néew doole mbaa ñoo xam ne seen yenn cër yenn cër dafa manqué suñ demee ba bëgg liggéey dañ leen di gën a soññi gën leen a dimbali ngir ni nga xamante ni moom lañ bañ a laaj loolu lañu leen di encouragé ñeenteel bi euh, ci fuqat wala fu raj-raj loo itam baax na ci ñu leen di bàyyi xel baax na ci ñu leen di bàyyi xel fu demee ne minan wala aj gi wala ba ci oto yi ñu dugg rek su xatee ñu jóg may leen ñu toog euh, loolu itam baax na ci moo xam ku ku wérut la moo xam day màggat wala koo xam ne ay cëram dafa xaw a am jafe-jafe ñu bàyyi leen xel ci loolu loolu mooy ñetteelu sàmmoonte gi muy àq yoo xam ne ñëpp ko bokk yeneen bi mooy wàllum euh, sàmmonte psychologique doomu doomu aadama ju néew doole sàmmonte ak ay santiment mi itam lu ci baax la ndax benn baat bu néew wala genn génd gu néew dafay mën a jeexital ci moom ba faw loolu taxoon nga gis sëñ tubaa dadaa tere sax nit ki ñu koy xamale ci ab taayam mu toll sëñ bi daf ko daa bañ maanaam soo ne diw mi fi jaaroon mel nangam mu ne da koo jëw mag ñi dañuy dañuy bàyyi lu xel loolu ci koo xam ne xëy na dafa am cër yi xëy na dox ba du gaawe noonu day bañ sax nga koy romb di daw ndax soo ko rombee daw xëy ne mën na koo fàttali li mu li mu li mu li mu manqué bul tudd nit ki mukk nag di ko tuddee cër bu mu manqué itam loolu àq la joo xam ne képp a ko yoral lislaam daf koy tere maanaam ay ñàkki tegg ñàkki teggin ci la bokk bokk na ci dem toroxlu ci ñoom euh, ak nag naa ko ramassé euh, xam xam na ngay wax ak ñoom ba sëñ bi sax dafa wax ne wa kullu man yanzuru fawqahu al-kilaab fal-kalbu xayrun minhu euh, sàmmante gi ci wàllum alal itam am na ci maanaam di leen bàyyi xel ci alal di leen ci jox wali yu amr bi ki kilifa jullit ñi dana leen ci bàyyi xel kooku itam dama ci bañ a dugg ndax euh, su ma juumut euh, inspecteur Chambake Niang dana wax ci xuququ raaya gaaw bii di ñëw fukki fan ñaari ci weeru koor euh, moo tax su ma ci duggee mën naa am mu xaw a kii daal astafurlah Chambake Niang ci xuququ raaya lay wax sëñ Fallou bu Assane mooy wax ci wulaatul umur kii day wax ci ñi ñu yilif kii di wax ci ñi ñu ñi leen yilif moo tax la ci dugg. Euh, ci wàllum sàmmonte gi ñu sàmmonte ñoom ak aar gi ñu leen di aar ci alal yi saraxe ak waqf ci la bokk walladina fi amwalihim xaqu maalumu li saa'ili mahrum tudd naa ko fi waqf nag lu am solo la rawat na ci Tuubaa gi nga xam ne ku na sëñ Murtala mu ci def ak sëñ Cheikh Gaynde Fatma loolu moom euh, dafa mel ne ñu bëree bëri bàyyiwuñ ci waaye lu am solo loo xam ne dañ ko waroon gën a yaatal moo te waqf mooy lan moo xam ne sa alal da nga ko fi bàyyi muy jur ay njariñ ñu moomale ko aw nit loolu euh, jar nañu bàyyi ci xel ci jamono jii ñu toll ndax murit gi ci boppam moo ko laaj te dafa bari ñu néew doole waaye fu mu amee ñu néew doole am na am na ñu am doole ñu am kàttan ñu nekk ci wet gi am na borom wërsëg yoo xam ne macha allah yàlla na leen yàlla yokkal seen wërsëg bu baax a baax ndax du jeex fa yàlla euh, wa in min shay'in euh, wa in min shay'in illa waaye itam ñu bàyyi lañ ci xel ndax lu mën a jariñ société bi la luy mën a yaatal société bi la lu koy jëmale ci kanam la kon loolu euh, mooy juróom mi tomb yi su ñëwee ci tomb bu mujj bi dama koy tënk ci ñaar ñaari man damay baaxoo ngir dimbali kii nga xamante ni mooy modere man maay tënkaatal sama bopp sama sama sama tomb su ko defee moom mu mën a gën a commenter lu yaatu duma jël ci waxtam te comme que man tiim naa ko sapp ko benn yoon dinaa koy gën a mën a euh, bàyyi xel bi ci des mooy tawsiya yi ci tënk bi li ma ci gis benn bi mooy lislaam dafa yittewoo lool ñi néew doole mm, day feeñ ci alquran di feeñ ci sunna ak barab yu bare bari yi mu leen tudd ak lam cay teg ñaareel bi mooy tomb euh, xaqu doafa wala yelleefu ñu néew doole dafay lu riche dafay dafay lu am maanaa lu yaatu te ràbbaloo te itam noonu la ràbbaloo yeneen itam yoo xam ne dafay jëm ci wàllum pas-pas ndax dafa am yoo xam ne moom da nga koy jàpp mu aqida dafay jëm ci wàllum rek jëflante doomu aadama dafay jël ci wàllum économie dafay jëm ci wàllum politique ndax dafa am loo xam ne dafay ñeel ñi jiite dafa am ñoo xam dafa yéen ñi jiite maanaam su fekkoon ne tey xilaafa islaam yi moo am comme nag waaye mën nañ koo jëmal ci sëriñ bi ci sëriñ bi am na yoo xam ko cee ñeel ci ay taalibe yu fi ñëw ndax dañ ko jox ngir yàlla ak ngir sëriñ bi ak noonu koy séddalewaate xam nga kooku benn la ci mu ci wàllum siyaasa waaye wàllum aqida bi mooy nga xam ne kii ne doole yàlla ko ko teg teg ko boppam yow mi am doole yàlla yàlla la ko def kii ñàkk yàlla la ko teg yàlla ko teg yow mi am yàlla ko teg kooku ci maanaam pas-pas lay doon soo mut sax nit kii ak gëm yàlla am tawxiidam day manqué wàllum ijtimaa bi maanaam rabbaloo beeg nekk nekk bu rafet bi itam noonu lay demee ndax soo amul àq yi suñ ko sàmmoontewul nekkiin wi du du rafet ndax su boobaa ñii néew doole mën nañoo iñaane ñii su émeute amoon tey wala coow lu néew-néew da nga gis ñu yàqal ci ñu baree bari li ko waral mooy dañ leen a mere woon naka jekk te loo lii mën na koo lijjanti waaye itam euh, ñetteel bi ormal gi ñu ormal ak yooyu néew doole yi dafay jeexital ci émergence bi sëñ Macky Sall bëgg lool wala jëm kanamu maanaam euh, société bi maanaam développement société lu baree bari dafay sukkandiku nag. ci ni ñuy sàmmonteeg àq way néew doole yi seen àq ci li ñu war a amee justice maanaam kenn du leen noggutu jaay leen doole seen àq ci ni ñu waree am wàll ci revenu bi nga xam ne maanaam société bi bépp ko bokk rawat na ressource naturelle yi ak yeneen ak yeneen bokkut ak sarax yeeg waqaf yeeg rikaas yeeg yeneen yi nga xam ne lislaam wax na ko te xajul fii waaye tam loolu day tax stabilité maanaam ak dal am ci société bi ndax li ma waxoon société boo xam ne ak maandu am na fi ak bokk ak bennoo dafay doon société bu stable bu dal bu boo xamante ni nit ñi dañuy dañuy seen diggante yi day day day ratax ñeenteel bi waaw te loolu itam day am na ci am na bala maa dugg ci ñeenteel bi su melee noonu leneen da ci am mooy dafa am njariñ gu muy jariñ ci ruux nit ki day gën a jege boroomam su fekkee day dimbali euh, ñu néew doole yi ndax suñu borom nee na ku seet si ku feebar dong ma fa fekk kon maanaam dafa bëgg wax ne kon yaa ngi def jéego bu lay jegale ci man waaye itam ak njariñul alaaxira li muy àjjana jaag xéwal yaag yu mel noonu kon ñeenteel mooy sharia nag jiitu gi mu jiitu luwaay yi ñu nekk ci àq yu bare bare bare juróomeel bi mooy ñu néew doole yi dañoo bari ay catégorie yoo xam ne indi naa leen fi te ñi ma ci indi itam lennat lañ ci du ñëpp waaye daal ci gàttal yaa ngi koy mën a tënk mooy képp koo xam ne dafa nekk ci position faiblesse kon dana ci duggu employé bi maanaam kii liggéeyal nit employé bi ak employeur am foofu dañ naan employé bi daif la ku néew doole la maanaam mën nañ koo misaal ci bamba ji gis nga fi ne bëkk néeg am na fi maanaam double euh, rôle bi mu fi am bëkk néeg ci côté day doon daif waaye ci côté bi ci des tam moom mooy doon xaw yi bi lu ma koy misaale mooy digganteem ak sëriñ bi daayif la fi doon waaye digganteem ak ñi fi ziar si moom du fi daayif ñi fi ziar si ñooy daayif moo tax euh, sëñ Ousmane Sam bu Bombardier dégg naa daan wax ne bëkk néeg aw sàkket la wuñ teg ci diggante euh, nit ki ci sëriñ bi ak nit ñi su daaree nii dal ci kaw sëriñ bi su daaree nii dal ci kaw euh, nit ñi moo tax itam yu bare bare daal mooy dama bëgg wax ne rek ñi ma fi tudd muy fukki ak juróom du ñoom dong ñi ma tudd ñoo ëpp euh, juróom-ñaareel bi ci seetlu yi mooy am na ci yenn catégorie gu ne ak àq yoo xam ne ñoom dañ leen koo jagleel ñoo ko moom waaye nag am na ci àq yoo xam ne ñëpp a bokk ñu néew doole ñëpp mooy yema mujjoon a tudd léegi ci niñ leen war a aare ci diine ci seen yaram ci seen alal ak seen nafs muy seen maanaam seen sentiment ak seen psychologie euh, juróom-ñetteel ba mooy àqi àqi doomu aadama ci lislaam dafa am mu ñuy wax obligatoire daal dafay dafay lu loo xam ne dafay ga doomu aadama dañ ko war a sàmmoonte kenn mënu koo jënd kenn mënu koo xëcc kenn mënu koo nangu te doomu aadama yépp ci yem kenn ak morom ja kenn ëppréwu ci kenn kon luy tolloog juróom-ñeent yooyu Euh, jële jëlee di maanaam mënees na koo tënkee ci jataay bi léegi nag yii moom danaa ci bàyyi lu xel ngir beneen yoon ni mu demee moom tomb bi yaakaar naa dafa doon yeyoo ñu gën koo épaper ñu gën koo tasaare wala sax ñu def ci ay lël ndax suñ ci defee ay lël borom xam-xam yu ko mate man cee waxtaan yaakaar naa dana jur ay njariñ yu bare bari moo xam séminaire lay tudd wala journée de de réflexion lu mu mën di tudd daal loo xam ne ñu jàngat ko baax baax ndax day lu mat fukki ak ak juróom yu ma tudd ak yu ma tuddul te war na ca mën a jëlee ay bind yu bare bare borom xam-xam nag def ko euh, ndax euh, man bokkuma ci ñaareel bi ci ñu war a bàyyi xel ci beneen yoon te ñu mën ko yóbbaale mooy ñuy nafaraat jàngaat sunu ndono sunu ndoro lii ñu am ci anam yëpp ak di ko jàngal gone yi ci lu wér dana tax ñu man koo appliquer dana tax ñu mën koo défendre dana tax ñu mën koo exposé tasaare tasaare ko ci adduna si ba tubaab yi li ñuy wax dañu xam ne droit de l'homme itam li ci lislaam def dafa mel ni dana jafe euh, beneen civilisation bu ko def yaakaaruma ne am na te fi ñu toll itam doomu aadama egseegul foofu li ko waral ndax ki bind doomu aadama xam njariñam xam fa mu jëm moo ko def muy subhaanahu wa taala alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir ñetteel bi ci loo xam ne jar naa bàyyi xel itam mooy nag lu mel ni war nañoo taxa am euh, kóolute ci li ñu yor jox ko gëdd xam li ñu yor lu mu doon bañ topp rek ci ginnaaw machine médiatique bu réy bi xam nga fi média bi toll dafay loo xam ne daanaka day day day buub ñëpp di leen yóbbaale maanaam am na ci yenn digg yoo xam ne tubaab bi dañ koo sol ci suñu bopp ba mel ne ñoom ñoo ko fi indi maanaam mel ne loolu moom ñoo ko njëkk a def ñoo ko njëkk a sottal ci àdduna loolu itam jar na bàyyi xel te euh, daa mel ne euh, su ma juumul suñu tomb bi liñ ci wax euh, bàyyi maanaam junj na ko te firndeel na ko itam ñeenteel bi ci mujj itam mooy bañ a topp nag ci ginnaaw yenn aada yi nga xam ne xëy na dana wuute ak li lislaam di digle ak donte dañ ko miinoon ak donte dañ ko fa fekkoon wala dañ ko fa jële woon wala dafa dafa dem ba not itam ñu bàyyi ci xel te am na yu ñu jund yu ñu junj ci biir jataay bi kon sëñ Xasan lii daal ci tënk gu méttee métte ak donte waxtu yu gudd na mooy li ma fi indi woon suñu ko gisee ci këyit yii nii mën na fukki këyit ak juróom-benn fukki këyit ak juróom-ñaar loolu itam day wane ne day tomb bu yaatu lool bu am solo bu riche itam waaye day wane leneen itam day wane ne man tënk moom mënuma ko ndax ma ne sax na koo tënk ci lu gën a lu gën a gàtt lool waaye daal li si bëggoon mooy yéwénal ak gaaral ko fàttali leente lay doon ndax xam naa ne jataay bi ak ñi may seetaan ak déglu ci furul jataay bi toog fi ñu nekk ñoo ma gën a xam li may wax fuuf ñoo ma gën a gudd alluwa ñoo ma gën a leeru làmmiñ xanaa yàlla damaa na toog ma toog fii nit ñi war a xam samay ayib loolu rek la du leneen maa ngi jégalu ñëpp di balu xàq ñëpp ci eh, guddal gi Euh, di ñaan sunu borom subhanahu wa moom mi nga xam ne moom rek a man yàlla ñu boole dimbali boole ñu suturaal boole ñu jégal boole ñu yërëm maa ngi yéen ku bëgg yàlla sunu borom bàyyi fii gudd fan lool maa ku bëgg yàlla sunu borom may ak gindiku maa ngi yéen ku bëgg yàlla sunu borom may wërsëg yi nga xam ne ci la ñu mën a sàmmee sunu ngor ak sunu diine wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.